yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. baax yow sëñ Fallou Mbacke ak sëñ Fallou Bousso mii nga nu booleel noo ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen ñaanal seenu taxawaay yàgg lool sunu borom guddal seenu fan te wéral seeni cër. di ñaanal sama sëriñ bi nga xam ne nag lépp moo ma ndax nag su ma fi nekkee tey jii di ba fi am cër bi ma fi am yàlla ak jëmmam ji la kon maa ngi koy ñaanal te di ko sant tey ñaan suñ liggéey bi nga ñaanal ma ñi ma àndal liggéey baa ngi nii mbàkke yaaram ñu ngi nii jaami sëñ Bàmba yaa ngi taalibe yaa ngi jullit yaa ngi nii ñi ma àndal nag te fëkk talun ma jiital ma rek nu àndi liggéey sëñ Bàmba Mbàkke boole naa la ak ñoom nag nga ñaanal ba lépp lu nu man ren bu déwénee yàlla man lu këpp lu nu bu déwénee yàlla nañ am lu këpp di sant sunu jëwriñ ji nag bu sa baali nga boole noog moom ak gone yi ñu àndal ñëpp noo ngi koy ñaanal bu sa yàlla na fanam wi diw doj sëñ Fallou Bousso dimbali nañu ànd naag nun giide nañu bu sa baali lu nu man mooma moo nu jàppale moo nu dimbali moo nu tenir yiir yàlla yàlla guddal fanam te yàggal ko fi ci dara darajey sëriñ Bamba nun daal mun li ma bëgg a wax sax sëñ Fallou mënuñu koo wax waaye nag Mbàkke daal taalibe yaa ngi nii ñi ma àndal liggéey bi tama a ngi nii daaw fanweeri junni laa amoon te yam naa juróom-ñetti fukki junni ma bëgg na nga ñaan bu déwénee yàlla nay un million yàlla nay un million yàlla nay un million ci barkeb sëriñ Bamba. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu. soxna bu Seck ak mbooloo mi àndal ñëpp muy ñi nga xam ne ñoo bokk dëkk Touba Ndamatou Corniche ngeen ñëw ak waa Mbusoobe be àndoo yi ñëpp di ñëw ci àllarba ji ñu ngi di seetal jumaa Sëriñ Tuubaa ji ca bëgg ci ndigal ba léegi waxtu wu ne ngeen di ci def yitte ak pasteef ju kawe boole ci itam di joxe di liggéey bi doy na sëkk ndax àll ba jot yi ne ñëw bale ko nettoyé ko set wicc ba benn tax-tax yéen ko bàyyi bi ngeen dem ngeen boole wàccam lépp loo xam ne addiya itam ngeen delloo seen kem kàttan def ci la ngeen man daaw ngeen jox fanweeri junni ren yi ngeen jox ñett fukki junni noo ngi ñaan yàlla ci barke Sëriñ Tuubaa bi tax ngeen di ko jëf ngeen dajale ko seen njort liggéey bi ngeen def tamit jëmee ko ci koor gi itam incha allah danañ ko ci tàbbalal kon nag ñu ngi leen sant ci tur suñu affaire mi nga xam ne moo jot liggéey bi am mbooloo ko àndal ñëpp te te te mel ne sax nag seen jibli fa dañ ci yaakaar naa ñu sëñ Abdoulaye Muxtaar bi ngi taxaw fee di xaar ngir ngir war a jot li nga xam ne moom la sëñ bi sëñ mu taxaw ci jëmmam moom nga xam ne mooy borom liggéey bi yàlla yàlla yàgg te wér donc indi muy adiyo jëm si ci liggéey bi kon nag ñu ngi ñaan mbooleem loxo xam ne jëf ngeen ko rek mu tàbbi ci biir liggéey boobu léeg ak nangu saayir ak baatin lépp loo xam ne fas ngeen ko ci suñu borom def lañ lu kawe seen i jot ba liggéey bi ngeen yàgg koo def yàgg ko def ci lépp ci ta ak ci sago ak ci wér ca mucc bépp gàllankoor lépp luy yitte ju ngeen am yàlla suñu borom saafaraal leen ko am tabat suñu borom ko saafaraal képp ku am aajo suñu a nag bu ko dee dem taxaw fee ca li nga xam ne sëñ bi bu ko defee ñu teg sëñ bët ca fas ca fas suñu aajo yëpp ndax lu jógee sëñ bi moom mën nañ doy na sëkk ci ñun ak faju daal di teew ay atet ak maa ngi suñu soññeeg mi na nga xam ne nag mën na ne lépp liggéey bi ndax bañu doog a tàmbali waxuma ba rek waaye bay doo daan gaaw dibi altenta ala ba yëpp dañ daan boole mu ñëw di ko soññee ba yàlla doo ñu xam ne jëm na mag ci la ñu sax gën a jaajuwaat daal di yeesalaat bis yi ba liggéey bi gën a yaatoo nii kon moom itam du yàlla dogalee mu ba mu fiituj ab bis ko taxaw ak soxna ñang mi moom bàyyi say mi ak ñeen àndal ñëpp rek dax damay ba di di lim tuuri ca ca duñ matal ca duñ matal ñëpp waaye nag lislaam leen ko xamee lislaam leen ko xamee mooy ñett sax bu ñu àndee du ñakk du ñàkk doon jëwriñ ca yoon wa loolu rek a tax ñu tudd kenn waaye kenn mënu kenn mënu kenn kenn nag moom liggéey bi liggéey bi ñëpp a ko bokk kon nag ngi soñ ñëpp bu baax a baax kenn koy nay def lu mënut bu kenn xaar kenn bu kenn gestu kenn liggéey bi lu ci waay def sa bopp nga defal defaloo ko kenn jërë ngeen jëf yaa xayra a ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa